nga bokk muy Benno Bokk Yaakaar mel na ne euh, fan yu mujj yi moom euh, seen yëf taxu ko neex lool ak euh, critique yeeg départ yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku d'abord Idrissa Seck qui s'en va nee nañu la manière est élégante <laughs> mais ñu bëri dafa leen xaw a jaaxal en fait comment une séparation peut être comme ça bu pare l'autre se revendique de se réclame de de de de l'opposition lan lañ mën a comprendre ci loolu. waaw xam nga man damaan toujours damay waxal yàlla rek dañu yàgg ànd mm-hmm. Idrissa Macky Sall Oumar Sarr Ousmane Ngom Madické Niang Masseck Ndiaye ñëpp Ousmane mm-hmm. Masseck yàlla dafa defoon ñu ñëpp bokk lekk PDS euh, su dee nag euh, fa lañ ñu nàndalee ci wetu président Ablaye Wade après kenn ku ci nekk nu ñu koy olof di waxee jàng-jàngaan ku ku kuy jàngaan soo mokkalee bersadaar kenn mm-hmm. ku nekk su ñu demee ba jëmmi jamono ñu dajawaat dañ dañ koy dañ koy rafetal waaye nag euh, suñu àndee mu am ku beddeeku ak nu mu ko beddeko man dama koy naqarlu dama koy pas naq dama koy mettitlu. vous la manière ni mu ko defee. déedéet xëy na sama olof moo dama koy mettitlu. dama koy regretter. ok su dee damay làkk France dama koy mettitlu. Mm-hmm. mooy euh, dama koy regretter su ma sañoon Idrissa day toog ak ñun ndax ànd bi rafet na fu ñu jëm rafet na waaye nag képp ku taxaw ne man damay ber sama daara. man xaaruma ñu waxtaan xaaruma ñu tànn kenn suñu biir man dama bëgg demal sama bopp mais bu ko bàyyi nag mu demal boppam loolu. pour man parce que aussi dañu ànd. Mhm. xuloowuñu xeexuñu mu toog mënoon nañ ko waxtaanee. ma ko parce que suñu waxtaanee waxtaanee mën na ma tënk parce que suñu waxtaanee man ak yow ak kaneen ñu ne nañu tànn kenn tànn la. man mhm. kontaanuma parce que man dama bëgg ñu tànn ma. dama bëgg demal sama bopp kon du ma xaar ñu waxtaan damay demal sama bopp demal sa bopp nag kenn aayewu ko man su ma sañoon sa Seck du dem fenn suñu biir lay toog ñu waxtaan mhm. parce que ñun man sama parti PLD li ñu wax mooy suñu sañoon waa benn bokk yaakaar ñooy tànn kenn ci suñu biir mhm. waxtaan woowu waxtaanee guñu ko moom mu dem parce que moom nee na Euh, xëy na wóor na ko xëy na wóoru ko. peut-être qu'il se dit que demal boppam. loolu la rek est-ce que du il se dit que ne euh, Benno Bokk bi nga xam ne mën na ko permettre mu mu déposer candidature am parce que il est sorti deuxième de la dernière élection présidentielle aussi c'est c'est une ambition légitime. waaw xeet nga ñu nag man man dama bokk ak parti Oumar Sarr. Mhm. ma jàpp ne moom am na carrière pour nekk ko ma jàpp ne man sama bopp am naa carrière pour nekk ko. pour mhm. nekk candidat waaye puisque ñun. dañu téye kenn ku ci nekk fàtte sa bopp ne dañ ko bëgg waxtaane euh, dama jàpp ne ñun fi ñu jaar kenn ku ci nekk ci ñun fi nga jaar ak na nga mel ci réew mi noonu nga am sañ-sañ ne mën na doon man mais loolu su ko ñëpp defee du doon kenn parce xuloo lay indi mais moo li may wax naan ay ànd dañ koy waxtaane mhm. moom jàpp na ne mënul xaar waxtaan wa parce que ber na daaraam demal na boppam su ma sañoon day toog ak ñun waaye dem na dem na bon mënuma ci dara dem na ñun tamit ñu ngi tànn kenn ci suñu biir. parce que mhm. beddeeku na naturellement ki ñuy tànn du doon moom. ah xëy na su toogoon xëy na su toogoon. mu nekk moom mën na nekk moom. Mhm. waaye dem na mënatul nekk moom. il est parti deful critique jàpp na ne Macky Sall bon bilan mais moom il ñu jàll ci keneen koo xam ne gën na mais def ci boole ay euh, sànni xeer muy le professeur Arona Coumba Ndofène. xaw na critiquer un peu la démarche de Macky Sall déjà ci emprisonnement yi mi ngi koy wax ñaareel bi mooy euh, politique euh, économique bu président Sall sànni na ci xeer bu doon moom beer ak TER du ko jël agriculture lay développer quelqu'un avec qui vous avez été euh, pendant très longtemps ensemble dix ans onze ans tey ji mu gën di wax loolu est-ce que loolu tamit du leen du leen yàqal. non xam nga man dama naan toujours politique moo deme noonu da ngeen di ànd. kenn ku ci nekk soo toogee ba yëg sa bopp di mën nga demal sa bopp nga dem so ay kuy dem xanaa doo dem rek ne dem naa euh, dem naa rek parce que daf ma neex ma dem xëy danga nga naan lii lii ak lii moo tax ma dem. Mhm. damay joxe benn exemple. man ak euh, ñi ma àndal ñoom Umar Sarr Babacar Gueye nekkoon ak ñeneen ñi ñu àndal ñu baxaw jong euh, les Saara Sall. ñoom mhm. Charles dañu nekkoon pedes ñoo toog ba mu neex ñu génn PDS defar suñu parti noonu ñu génne PDS defar suñu parti ñëw toog waxtaane ko ni dañuy ñëw bokk ci majorité bi noonu la keneen ku mu neex aussi génn. xam nga lan laay ñaan damay wax toujours euh, soo bokkee ak nit ngeen ànd ànd bi rafet waaye nga toog ba yëg ne yow comme ni ma ko waxee sànq jàng-jàngaan sooy jàngaan soo mokkalee ber sa daara maa ngi ber sama daara mhm. beral sa daara te bañ a xarab ña nga àndaloon loolu parce que loolooy rafetal diggante loolooy a bi mu nekk ci biir mais loo xam ne aussi lu a gëstu la parce que aussi critique yi euh, professeur xam-xam la intellectuel la bu toogee wax lu toll noonu tamit est-ce que du xaw a euh, li nga xam ne mooy mooy li nit ñi di xalaat ci yéen xam nga loolu euh, kàngam la dafa amoon ay moroomu kàngam yu nekk ci biir. Mhm. du moom rek moo fa doon kàngam. dama naan ay gis-gis la moom noonu la ko gisee man gisee wu ko noonu. Mhm. man tamit jàpp naa ne xeebuma sama bopp ñeneen xeebuma leen kenn ku ci nekk am nga loo am am nga loo indi am nga noo gisee moom noonu la gisee du ma ko du ma ko xarab du ma ko critiquer dama naan man du ma doxalee noonu. am naa sañ-sañ ne man doxale